monsieur le ministre monsieur Modou Diagne Fada très cher grand frère ñu lay remercier bu ñu taxawee fii jàkkaar jàkkaarloo Sénégalais di jël kàddu di wax vous avez énormément participé à nos formations politiques du temps du PDS autant qu'on est fier de vous voir ici et on souhaite vous voir ailleurs encore autant on espère que vous êtes fiers de nous voir aussi ici monsieur le ministre dafa am loo xam ne yóbbante la waa département de Kër Massar on a six communes et dans mu Yeumbeul Nord Malika et Keur Massar Nord trois communes frontalières mais dans les trois commune dafa am commune bu tudd Malika boo xam ne nii dafa am ñu fa dëkk ñu fay yeewoo ñoo xam ne nii fa la ñuy votewee mais daanaka dinañ la boole ci leen communes yi muy la limite de euh, Yeumbeul Nord limite u Keur Massar Nord muy ne ay jafe yu bëri bu état indee ndimbal ci commune bi ñoom mun cee bokk mais pourtant fa la ñuy yeewoo fa la ñuy bëgg dëkk itam dama jàpp ne que loolu c'est une erreur ñu def te j'espère ak sa clairvoyance que cette fois-ci on aura gain de cause et que loolu dinañ ko gérer beneen bi monsieur le ministre mooy les commissions techniques les présidents de commissions techniques au niveau des mairies man dama yaakaar ne que sa ministère dafa jot mu xool saytu les conseils municipaux qu'on a au sein des mairies ñi ci am gëdd wala ñi ci mën a am responsabilité nekk président de commission souvent on laisse au maire ñu choisir wala ñu def ay ay propositions mais on se rend compte à la en fin de compte que ki ñu ko dénk c'est juste politique mais acte nu la commission bi ñu ko jox et finalement en cinq ans il ne peut rien absolument rien faire beneen bi mooy acte trois monsieur le ministre dama jàpp ne que am na lu bëri pouvoir bu ñu jox les mairies mais waruñu leen ko jox rek bàyyi leen ak population bi il fallait d'abord faire une très bonne communication pour faire comprendre aux populations que désormais li ngeen soxla ci seen gox mairie yi fànn yii ñoom ñoo ko yore lu wekk wér gu yaram santé lu mel ni éducation ainsi de suite jusqu'à présent on voit des mairies yoo xam ne bii bu école tijjee les parents d'élèves sont obligés avec l'école di tendre la main def ci groupe WhatsApp yi di wut ndimbal pour rek réceptionner ay toilettes te je parle des régions de Dakar et des régions de Thiès des régions qui sont très proches et qui sont en zone urbaine te am na ay mairies yoo xam ne am nañ doole gi am nañ suuf si mais jusqu'à présent quand une mairie te permet de faire du social ay Fass ay Fass Màkk wala ay dem euh, Touba tout ça c'est mais pendant ce temps là mënul bàyyi li nga xam ne moom mooy l'essentiel mooy éducation ak sanitaire bi ci biir commune bi def social boo xam ne am na fu mu waroon dugg te pour man yéen en tant que ministère vous avez une très grosse responsabilité dans cela faites des des descentes au niveau des maires xool ba xam le minimum dont les gens ont besoin te mu nekk seen gafa parce que ñu ngi ko fay defal defuñu ko fa di la remercier di la encourager di la wax ñi nga téewee aussi say jigéen ci biir sa biir nekk suñu ay ay collègues libéral nañ ko et pour aussi on vous félicite